manam dañuy extraire les ressources transformer utiliser sanni léegi rek loolu dafa xeewale léegi da ngay ex extraire transformer utiliser et réutiliser loo tax wax la philosophie des des trois R loolu nak ci kaw ci xalé yi boo waxtane ñom ñoom inculquer leen ñoom dañuy màggale mom te mom buñu ñu ñom rek dañuy nekk ay acteurs du process. ñu gis tay ndaw yi ñu doxalé wër quartier bi yépp def caravane de sensibilisation. xale bu ci nekk gàddu bidon ñi gàddu ay mbuus ñi gàddu ay sachet génn ci école yi génn ci kër yi loolu day dal sunu xel. maanaam plastique bi nit ñi mën nañu dund ak moom ci biir kër gi utiliser ko ba pare teg ko fenn soo paree daal di koy ñëw gis nga kesku bii nii soo si ñëwee dañ la koy wecceek ak produit fini boo xamante ni di ko mën a utiliser waat yow sa biir kër. Mhm. wala ñu weccee la ko ak xaalis. ndaw yi nga xam ne moom ngeen tànn tey ak lu ñu mën a wax ñoom ñooy suñu yaakaar ëllëg. pour que li nga xam mom lañu bëgg muy am un environnement sain pour que ñu mëna euh euh saytu suñu mbalit comme niñ ko waxé trier que euh, conditionner que valoriser que ci ñom la wara démarrer dafa waron doon sax ben matière au niveau de l'école parce que mag ñi euh, fi mu né ni seen automatisme yi ci sànni mbalit ak ci def leneen ak leneen ak leneen pour pour waat leen ci defay jafé

mungi ngi liggéey bu am solo te xam ngeen yëg ngeen ko ba fexé ba état gunge ko lu mat euh, lu mat cinquante millions pour que mu def euh, bibliothèque au niveau de Colobane dans son quartier et loolu doon lu am solo te loolu bu koy def mom xam nga ne mom soxlatul bibliothèque mais xalé yi nga xamné ne ñoo nekk ci environnement mom mo wax tax mu def jéego yoy état comprendre lolo aussi xamné initiative yu melni dañ ko wara renouveler dans tous les quartiers aujourd'hui la commune est à côté d'elle dinañ ci ànd ak ba projet bi ag, lepp luñ ci man aussi pour accompagnement ci fonctionnement ba dinañ ko def inshallah. xalé bokay euh, vraiment xalé bo beugé aussi euh, manam mu nek mak dafa am numu wara war mak maanaam xale euh, gàncax la xam nga tey sànq euh, ni ngeen ko gisee ci image yi doon nañu euh, def li nga xamante ni moom mooy planter benn cocotier comme ñun ñooy doon ay mag nag ñoom la ñuy dénk dëkk bi après il faut ñu xam na lañ koy téye xam nga nit ki boo ko juree ba pare dafa war a am loo ko dénk boo ko joxee ay milliards te xamoo te waxoo ko nan lay téye milliards te milliards lan lay jariñ du ko jariñ dara.

pourtant nous nañu exploiter plusieurs kilomètres de plage nous. il faut nous aussi comme nous sommes des pays qui aspirons à l'émergence à l'horizon 2035 nous nous dëkk yi nga Nous surtout Nous ñoo ñu raw ci nous yar nous ñoo ñu euh, Nous raw nous jox nous, donc ñun suñu Nous li nga faire des bok ci dëkk yi nga xamante ne ni nekk fi xale dafay neex.